gis-gis biñ ci am mooy gis-gis bi yàlla joxe yonent bi sallallahu jàngal ñu ko góor daal nga nekkal góor te jëf-jëfi góor jigéen nga nekkal jigéen te jëf-jëfu jigéen waaye ana góor lu muy uti ci melokaanu jigéen ana jigéen lu muy uti ci melokaanu góor déjà loolu rek toñ sa bopp la moom mi mbir mi dal moo njëkk a tooñ boppam kon bu ñu mere kenn dama dégg benn woykat mu ne jarul ngay mer sa jikko bi moo la tooñ ni nga mel ni di mere nit ñi mereel sa jikko mereel sa bopp mereel sa bakkan kon moom mi lii dal tey jii moom war naa mun a mere boppam moom war naa mun a yedd bopp mbokk yi mu am tamit war nañ mun a xalaat ne li ka dal ni yëpp moo ko yóbbee boppam ndax bu yoroon melokaanu góor yore ñay yore jigéen yore melok kon lii yëpp du yegg si problème boo koy traité sama maam nee na nit bu fa xastaloo daanu bul xool fi mu daanu ak li ko daaneel danga naan lu ko waral li indi li yëpp nañ ko calculer lu ko waral kuñ ci jàpp tamit dañ laa tooñ te kuñ ci jàpp dinañ la bàyyi par force lu tax dinañ la bàyyi parce que dafa am ñoo xam ne dañuy xeexal kuréel googu ñooñu ñoo leen di napp di leen jaay doole moo waral ñu bëgg a jël ndaw ñi di leen noot di leen téye waaye téyewuñ leen ci dëgg bu ngeen leen téye ci àddina di ngeen leen bàyyi par force ci àllaaxira parce que bu buñ jàppee xale tamit dafa mel ni ne ñoom dañoo dooleel kooku ci melokaan ba mu nekkoon te kon ñoom ñu ngi xeex ak yàlla te li gën a bon nag mooy nga doon woon nit ñi ci yoonu yàlla ba pare mujj di fekk nit ñi ci yoon yàlla su boobaa yow da ngay mujj bokk ci ñi nga xam ne ñoo yéefar yi te bu dee jullit mu ngi ci ñiy jàpp ñooñu kon kooku na seetaat jullitam ndax est-ce que jullit la ndax ab julit dëgg du nangu loolu wax dëgg fa